jiite IPAR IPAR euh, benn kuréel bu nekk ci Afrique mais basé wu Dakar euh, di liggéey ci wàllum développement euh, moo tax gouverneur bi invité ñu pour ñu ñëw aussi participer ci forum bi. développement la ñu mën a wax lu waral sa teewaay fi nga xamante ne moo di bii alors suñu teewaay c'est parce que d'abord ñun dañuy dañu nekk ci dañu nekk gëstukat. Euh, gëstukat dafa soxla euh, effectivement euh, xam avant ngay wax ci mbir baax na aussi tey ñëpp ñu ngi wax si wàllum gaz ak pétrole mais dafa am solo ñu def ay jàngat jàngat yu am yu leer yu mën a wane ni fan la ñu war a taxaw naka la mën a demee ak ku nekk bantaxawaay taxawaay la mën a la ci mën a am ñaareel bi ñun dañuy yëngatu ci wàllum mbay napp ak aussi par exemple xëyum xale yi dañu gis ni que ku wax tey gaz ak pétrole waroo fàtte mbay waroo fàtte napp parce que dañu gis ne ni que le plus souvent boo gise par exemple yenn dëkk yi bu ñu amee gaz ak pétrole dañu fàtte seen seen mbay et loolu gaz comme ñëpp xam nañu ay vingt euh, ak euh, ñaar fukk at ak juróom lay def wala fanweer at lay def normalement mais du du du tere. peut-être mun na am yeneen puits encore yeneen euh, en tout cas découverte loolu dafay wane ni Sénégal mun na continuer di nekk pays producteur mais dañu war a bàyyi xel aussi ci wàllum euh, pour gën a defar suñu mbay gën a defar suñu suñu xëyum xale yi pour que ñu xale yi mën nañ ci euh, en tout cas Sénégal mën nañ ci gis boppam. Euh, dafa am solo tey lu ñu woowee contenu local ñu xam ni que warul nekk simplement sans impact ci population locale yi tey Saint-Louis ak gox yu ko wër war nañu préparer wu. pour que opportunité gaz ak pétrole bi mu nekk mu am njëriñ ci ñoom ñu am njëriñ ci seen biir euh, vraiment euh, ñaareel bi dafa am solo tey ñu xool naka la ñu euh, mën a aussi dem jàng lu am feneen par exemple def lu ñu woowee benchmarking pour par exemple Ghana amoon na gaz ak pétrole Nigéria amoon na pétrole naka la ñuy def pour que ñooñu bu ñu amee en tout cas yeggee ci mbir moom amuñu problème wala problème ñu ci jàngat. yooyu ñun tam ñu mën a euh, waajal enfin je crois baax na ñu am benn fonds fonds d'investissement pour que fonds boobu ñu xam ni que mën nañ ko jégleel vraiment suñu activité euh, habituelle yi vraiment ñu defar ko euh, mu am vraiment impact bu am solo ci population yi